Patampa pa mga bata isa. Patampa pa mga bata. Sa mga kapgana, pag sintuwa ka, kandiyar, pero... alhamdulilah waaw tey dañu ñëw pour xool si teen bi comme commencé nañ ko alhamdulilah yàlla nañ ko eggale ak jàmm yàlla nañu am ndox mi nga xam ne moom la ñuy ut nga xam ne ndox mi su ñëwee du bari mën a jëriñ waa dëkk bi daal léegi teen bi nag euh, benn association ba tudd Au Pain Sourire moom moo ko financé moo leen ko may loolu moom moo waral ñu ñëw pour mën ko filmer pour euh, waxtaan ak yéen pour mën leen ko woon ñoom ñi nga xam ne ñoo ko financé comme ñun ay ndaw la ñu ñu yebal teg xaalis suñu loxo pour ñu dafa leen teen dina jaar yu ñëw xool liggéey bi fan la toll pour mën leen ko woon euh, wax nañ ñu ne da ngeen soxla teen loolu moo tax ñu andi fii teen bi. ñu ngi leen di gërëm ci seen jëf ak seen taxawaay ci li def ci dëkk bi. ndax dëkk moom bu ci ndox manquéwul kooku ma macha allah lépp baax na ñun nag ñun dëkk bi wax dëgg manqué woon nañ ndox indi indi ngeen ñu ndox wax dëgg yàlla sant nañ yàlla ci yàlla bu baax sant len waaw léegi daal jafe bi yëpp xam ni ne ah ñu ngi ci kontaan ñu ngi ci féete bo ñu ngi féete bo ci ab wàllum ndox de ndax lii moom bu ci yàlla defee ndoxum jàmm ndox bu rafet ndox mu neex kon ñu la bu baax sante len ndax lii mënaluñ ko woon suñu bopp ngeen defal ñu ko ñi ngeen ñi leen ko jox benn ba ngeen àndil ñu ko ñu ngi leen di sant lii fa mu jógee itam yal na mu yokk bu baax a baax a baax te yàlla fay leen ci laggeen ci pay arab soxla nañ ko fi ndax lii yëpp ay xele yu ndaw lañ bëgg nañoo jàng alxuraan me dañ koy jàng ji fu sori te la ñu gënaloon ñu di ko jànge ci biir dëkk bi lii ngeen defal nag ñi nga xam ne ñoo indi li muy ndox mi ñu jigéen ñoo ci gën a bég ndax dañ daan jóg di takk ay saret di dem dëkk ba dëkk di rooti kon lii xam nga bu demee ba am fii tey suñu chance la ñun ñëpp ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di ñaan yàlla yal na doon lu gën ci ñun mu egg ak jàmm doon ndox mu neex ñu fekk ko ñëpp ñu ngi leen di ñaanal bu baax te am mbégte bu baax a baax ci ñoom yàlla mi am yàlla na leen yàlla fay ñu leen di ñaan lii bés bu ko yàlla mottalee ngeen jàppale tamit ci suñu dundee ñu am école arabe. donc euh, on est venu comme d'habitude euh, voir l'état des travaux. Ça se passe très très bien, ça avance bien. Et Béznillah, donc dans quelques semaines, vont sortir, Inch'Allah, les premiers d'eau de ce puits. Ils n'auront plus cette tasse à faire. Ils auront de l'eau à quelques, quelques mètres de leurs habitations.